amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen yéen ñu tawlu ci 5M TV Sénégal jërë ngeen yi Balla kon daan nay daan ki nga xam ne moo di Tapha Tine ginnaaw bi nga xam ne moo doxoon seen diggante ni ji kii di Balla Gaye de daan nay nax kii di Tapha Tine daal di koy daan jël bu set wicc bu amul benn werante foofee ca arène nationale ñi nga xam ne rek ñoo ànd ak kii di Balla Gaye de daal nañuy kontaan lool di yuuxaloo waaye ñi nga xam ne ñoo àndoon ak kii di Tafatine ñoom nag daan nañuy am gàcce parce que jàppoon nañ ne Tafatine mooy daan ki nga xam ne moo di Balla Gaye ndax kat moo ko ëpp foofu waaye kii di Balla Gaye daan daan ki nga xam ne moo di Tafatine mu nekk na combat boo xam ne Eh, neexoon na lool tey ji ñëpp doon ko xaar waaye kii di Balla Gaye daan nay mujjee daan ki nga xam ne moo di Tapha Tine jël bu set wicc daf ko nax daan ko jël bu leer nañ boo xam ne amul benn werante tey ji foofee ca arène nationale mu nekkoon nag loo xam ne ku nekk rek ma ngi ci doon coow kii naan kii mooy daan kii kii mooy daan waaye nag jël ba daan na set wicc ci ki nga xam ne moo di Balla Gaye daal di nax ki nga xam ne moo di Tapha Tine daan ko jël bu set wicc bu amul benn werante